waaw comme ni ma la ko waxee rek Croix-Rouge département bu Mbacké seen njiit Alaaji Mbaye Sall di président comité départemental bu Mbacké day faral di de organiser jotaay yu mel nii bii mooy ñaareelu édition ñu koy def muy ñaax askan wi ñaax population bi ngir su ñu matee ci accident ñu xam ni ñu réagiré ren nag ñu def ko d'une manière assez euh, importante mooy ñu invité su mbokk yi famille yi invité suñu mbokkoor sapeurs-pompiers yi mais invité comité national invité le projet invité les autres formateurs au niveau national Thiès ñëw na Dakar ñëw na Diourbel ñëw na yëpp invité ñëw nan ànd kook les secours de Touba ak de Mbacké pour ñu wax askanu Mbacké ak askanu Touba su accident amee lan jëf moo njëkk pour askan bi fa njëkk a yem nu muy wooye sapeur nu muy wooye sami nu muy alerte nu muy protéger woo ban geste njëkk def ngir sauver nit ki en attendant ñi nga xam ne moom la seen xam-xam màcc mbir mi mën na ñëw ci waxtu bi loolu war tey ñu ànd ak département Mbacké ànd ak Croix-Rouge sénégalaise njiital suñu président ànd ak suñu partenaire yëpp yooyu ma la wax ak les formateurs de la niveau national ñu ñëw toog fi teew bien sûr yombul waaye am na njëriñ dana geste de premier secours bul xeeb loo ci man tey suñu la jàngalee tey dañ lay arrêté mu ndaw doy na soo liggéey nga xam ku am malaise noo koy defal doy na soo liggéey ku tàggale kook sagom di noyyi baax na su ëllëgee kuy miir baax na ngay dem ba ku am xol bu taxaw ku kon baax na baax goo xam te bi loo ci xam mu néew wala mu bari am na njariñ woote wala sax baax na nga xam ko aaru pour su accident amee ba beneen jiyee du am baax na ak yeneen a yeneen moo tax dañuy ñaax askanu Mbàkke Touba ak bépp doomu aadama bu nekk Sénégal ku ci nekk fexee la jege ji sapeur jege sami jege croix rouge pour ñu gën laa tàggat ci ni ni xette doomu aadama ci kër ga ci mbedd mi ci biir bu liggéeyukaay yi ak fépp foo xam ne nii ñoo ngi fay daje mbooloo ngi fay daje soo gisee yu baree baree baree bare ay ñu mooy ñi seen xam-xam màcc ci loolu su sàppoor njëkk na teew ca waxtu wa wala sami wala croix rouge mën naa waaye ña fay toog di seetaan ay profal nan mooy amuloo xam-xam ngir xeetali filmé leen fay nekk photo yooxu ak jaxasoog jaaxle léegi moo tax kon geste premier secours day loo xam te ne bii mun a ñàkk ci askan wi nit la ko war a am kër gu ne daa war a am secouriste entreprise bu ne bérébu liggéeyukaay bu ne service bu ne war na am ku jàng xam-xamu premier secours waxantuma askan wi waxantuma sëfoor si moo tax CROUS départemental bu Mbacké ci seen njiit Alaaji Mbay Sall di président ba ànd ak le comité national ak suñuy partenaire ñu bëgg a wax askanu Mbacké Touba ñëw leen jàng si geste premier secours loolu daal mooy tegtal bi thème bi loolu la tasaare ni ñuy xette doomu adama ci askanu Touba ak Mbacké ba ku fi jàng ni ñuy xettee doomu aadama bu nekk ci tolof tolof rafetlu nañu liñ fi fekk et ñuy encouragé la aussi parce que depuis bu ñu fi ñëwee ba tey gis nañ ne ña nga xam ne ñoom ñoo ŋànk activité bi dañ ko doxal mais doxal bi li ci gën a am solo mooy ña koy doxal da ngay xam ni ñii la ñuy wax xam nañ ko mën nañ ko te it yaatal nañu ndax yaatal bokk na ci nga bokk ak ay nit béréb ngay def dara nga leen kaay leen ñu toog ñu waxtaan te ba ñuy waxtaan kaay leen ñu nasandoo kaay leen ñu defandoo suñu paree kaay leen ñu xayma ba xam fa ñu nekk lañ fa def ndax dox na ndax doxul lan lañ war a mën a yokk loolu dama siy remercier surtout le commandant des sapeurs pompiers national parce que démb ñoo nekk noo woon ensemble. alors activité bi dox doxal nañ ko doxal nañ ko ci anam yi gën ci anam rafet na trop ndax liñ fi fekk mooy ña doon secourir ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci difficulté. ñaka doon def wane nañu ne ña leen doon jàngal lañ leen doon jàngal teg nañ ko ci loo xam ne mooy téere téere nag mooy xaw mooy loo xam ne dañ ko tënk buñ ko tënkee nag ñu am ñañ ca formé ñañ ca formé dem am ñoo xam ne ñoom la dem formé ji ñañ doon formé ñoom ñoo doxalee ni mel ba ñu gis li nga xam ne moom lañ fa gis naam am na ay xat-xat war na am am na ci yoo xam ne war nañ ko mën a yokk ah le niveau central moom bu jotee rapport bi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo def activité bi yónnee nañ ko ko ñoom dinañ ci statué wu. beneen bi ci am solo mooy tey jii fierté la ñu ñëw fekk Mbacké def lii ndax lii amoon na fi Thiès ah, amoon na ci yeneen zone tey dañuy bëgg aussi mu am ci yeneen zone ak amaat ci yeneen zone. tey nag euh, waa sa waa Croix-Rouge exactement dañ doon def benn exercice ñu invité woon pour ñu jël ci part surtout exercice yoo xamante ni. boo ko fekkee am na yoo xamante ni sapeur pompier da ciy am wàll sami da ciy am wàll ak ñeneen ak ñeneen donc dañ leen di féliciter pour initier yi initiation bu ñu ci jël vouloir bu bëgg sensibiliser la population surtout et puis bëgg ñoo imprégner surtout pour ñoom lu ñu mën a def fan la ñu mën a taxaw ak fan la ñu mën a jàppale en tout cas ñu ngi leen di féliciter davantage et di leen wax ni exercice c'est toujours comme ça et puis day day day am njëriñ ñu koy def parce que day tax ñoom ñu xam lan lañ mën ak lan mooy seen difficulté ak lan lañ koy mën a consolider surtout. exactement collaboration bi moom fi la la nekkoon et day gën a dañ koy gën a consolider surtout en tout cas on est avec ñoom. Euh, xew-xew yu mel nii def ci am solo lool Samy apporté ci euh, def ci contribution euh, un pour sensibiliser population bi ci rôle Samy mais aussi permettre population bi ñu ñime Samy. xam aussi lan mooy liggéeyam bu baax a baax waaye tamit aider tamit les organisateurs ci seen travail ñoom aussi à travers la Croix-Rouge aussi les sapeurs-pompiers collaboration bi ñuy bi ñu bi bi am entre nou donc mu mën a gën a dëgër euh, ñu mën a apporter à la population l'aide qu'il faut euh, pour que ñun ñëpp main dans la mais ñu mën a liggéey euh, dans de bonnes conditions doo ñëwee daal wax dëgg yàlla tiitoon naa la wax dëgg yàlla amoon naa ci tiit yaakaar ne dëggantaan la mais def nii wax dëgg yàlla yal naa jëm kanam bàkk rasulullah ci rek suñu Tuuba wax dëgg na trop wax dëgg yàlla man wax dëgg yàlla jàngal naa ci lu bare wax dëgg yàlla su wax dëgg yàlla a am parce que euh, ñu ñu mën a xam parce maa ñëw yaakaar ne dëggantaan la mais di entraînement la pour xamal ma askan wi wax dëgg yàlla rafet na trop wax dëgg yàlla waaw am na lu ma ci xam nag waaw am na lu ma ci xam parce que jàng naa parce que ban nga ci gën a maîtriser waaw am naa ci maîtrisation lu bëri laa wax dëgg yàlla dëgg yàlla maîtrisation lu bëri mënuma léew lii nag mais mënuma ci xabaar yu lu bëri laa wax dëgg yàlla